mi nga xam ne mooy tax passé am ñu koy tuddee ponk yi passé mooy ñeent yi ñu bëgg a tudd al ah ponk bi jëkk mooy jëmm ja nga xam ne mooy def passé ma kooku nag mën naa doon jëkkër ja mën naa doon koo xam ne jëkkër jaa ko yebal mën naa doon àttekat bi xëy fase nag faaw mu nekk jullit ak yëfar bu fasee su yoon bi ca nekk na nekk itam kàllaf gone bu fasee kenn du ko déglu duñ jàpp ne fase na te na koo ko ànd ak sagoom ànd ak xelam ab dof bu fasee itam moo ko fasewu teyam lu muy day def léeg-léeg mu tane ca ndox ga léeg-léeg mu nekk ca kon jamono yi mu tànnee moom bu fasee ñu jàpp ne fase ma nekk ànd naag sagoom rek bu fasee ñu jàpp ne fase ñu dal na mandité bu araam mooy la mu naan am ndox la muy màndal ñu koy tuddee sàngara bu dee ñoom dañ koy teqaleeg bu fekkee la mu def ba màndi du liquide maanaam nekkul am ndox li ci ay doom la yooyu wala lu mu tux la foofu am na teqale waaye bu dee sàngara si nga xam ne ndox la daal bu ko naanee lu mu màndi màndi doonte àgg na ci mel ne dof nga xam ne xameetul asamaan ak suuf bu defoon ab teen attan caa dugg mbaa sawara du ci xam dara it neen bu fasee rek jàpp ne passé mi dal na ndax ndeke mànte moo ko teg boppam lu si juddoo rek jig na ko su màndi woon nag màndi boo xam ne araamut mel ne am soow rek la naan mu daal di koy màndal wala docteur jox ko garab rek mu naan jibu ko mu mel ne ku dilimbaani mel ne ku màndi yooyu jamono moom bu fasee it pase na du dal moo ko pase bu teyam donc ñaar bi mooy bu ñu tudd baatu passé ba mu jublu ko bu fekkoon ne daa juum rek tudd baat ba waaye tuddwu ko woon a wax kon passé ma dalut faaw daal nga xam baatu passé ba ba mu koy wax it mu jublu ko ndegam moom moo ko tey ca ba mu koy wax doonte day kaf itam du tee passé ma dal ndax parce que daa bokk ci ñi nga xam ne duñ ko nangu kafe ko duñ ko nee nag waxal ne fase naa saa soxna te xamul lu muy tekki ndax moom du wolof mu daal di wax loola du tax ñu jàpp ne fase na faaw dee aajowoo mu xam baat ba muy wax muy tekki fase te mu tey ko wax ko su fekkee dafa tawat na ni mu sibbu tey ko di waxante rek noonu la ñu wax xelam nekku nit bu tuddee fase it du tax ñu jàpp ne fase na ñu ko waxee woon léegi bu màndee ci loo xam ne mu dagan la mel ni mu naan lem rek lem nga bilimbaane ko mu tàmbalee wax boo xaale fase it du tax dara war ko ja ba tey nag liy wax yàmba wala dorog xeet yooyu nga xam nekkuñu am ndox bu dee ci téere yu njëkk yi mel ni ñu ñuy jàng moom dañuy wax ne bu ci jëfandikoo loo xam ne daa gis na ko jëfandikoo te bu yàq am xel moom nag mu def ko rek far am xelam tëlbati yooyu jamono su fase itam du tax fase ma dal ndax lam ci jëfandikoo lu yam rek la bu ci jëfandikoo loo xam ne ku ne xam na ne moom ku ko def tàggoog sago su boobaa bu fase itam moom passé ma dana dal ñoom dañu jàpp ne yàmbaat xeet doro yooyu jëmm ja laab na mën nga koo julliwaale bu la neexee itam boo bëggee faju mën caa faju te bañ caa jëfandikoo lu yàq sam xel léegi nag bu ci jëfandikoo loo pour yàq xelam nag ba tax mu fase it kon fase ma dana dal waaye bu ci jëfandikoo lu yam rek loo xam ne daawul yàq xelum kenn moom nag mu yàq am xelum ba tax mu tudd fase it di tax fase ma dal loolu daal lañ njëkk ñi daan àtte ñoom xëy nag ñu yees ñi xeex gi ñuy xeex borom ak lu ko nuru tax ñu àtte ci yenn àtte yu gën a diis ñoom dañuy wax ni ndegam loolu nekkul am ndox rek bu ko jëfandikoo jël ci lépp ba xelam demit lu tax ñu gétan ko gétanu ko naan sàngara ndox ma rek lañu wax ni bu ko naanee lañ koy gétan waaye nag ñoom bu ñu waxee ne duñ ko yemaleeg sàngara ba di ko gétan it dañuy wax ni àttekat bi moo koy yar yar ba it àttekat bi mooy seet na ca yell mën naam sax bu seetee na ca yell lu ëpp gétan waaye ndegam gis na ne moo ca yell rek saye boobu yare ko noona balaa passé maa dal ka fase def ko ci coobareem waaye buñ ko forcé ne ko waxal baatu fase ne fase naa saa soxna boo ko deful dinaa la rey mu daal di wax ne fase naa saa soxna du tax passé ma dal bu fekkee def waatoon nangam du ko def su ko defee rek soxnaam fase na am ku ko forcé nag ba tax mu def loolee kooku ba tey du tax soxnaam fase mel ne mu waat ne tey dem marché bu demee marché rek soxnaam fase na am ku ko yenu forcé ko boobu ko marché ba du tax soxnaam fase loolu nag wute naag bu ne woon danaa def nangam su ma ko defut saa soxna fase na am ko dox digganteem ak moom nag ba loola amut ndax du yemale du ma def ak danaa def bu ne woon tey faaw ma ubbi sama bitig ba kenn mënu ci dara su ma ko deful rek sama soxna fase na am ku ko jàpp nag tëj ko kaso ba jant bi so xam ne mënta dem ba tijji butigam ba tee soxnaam fase ay taaliq jooju nag mooy ñu forcé ko ba mu aj fase ma ci dara ne ma mëttoon aj fase ma mel ne am koo forcé ne ko neel sama soxna si daal bu sama bàyyi ñu gisee bàyyi ko ci réew ma rek fase na mu daal di wax loola suñu koo bañ bu bàyyi ñu gisee dem tax fase ma dal gannaaw ba mu waxee ne buñ ko forcé ba mu fase fase ma du dal war naa leeral kon anamu forcé ga nu muy demee bu njëkk wax nag buñ ko forcé woon ne ko faseel boo fase wut ñu rey la mbaa ñu dóor la mbaa ñu tëj la kaso kon saye boo mu fase te du tax fase ma dara war ko ca mbaa ñu tëkk ko ne ko boo fasewut ma nangu sa alal am na ñu ne alal bi néew ak ñu bari ñoo ci yemoo sañ naa fase te lu tax fase ma dal wala ñu tëkk ko ne ko soo fasewut dinaa la yeew dinaa la jëng mu jàkkaarloog loola kooka taxaw temm ne ko soo deful léegi léegi ma def la lii léegi léegi mook ñu luñ séentu mu wër ko ne moom ki koy tëkku kaxut bu ne ko soo fasiwut bu gaawoot naa la def nangam loolu kon lu ñu séentu la su fekkee wër na ko ne moom li mu wax lu mu nar la moom mu doon lu teew ñooye moom kon sañ naa fase te du tax dara war ko ca fase ma loolu mooy wala tawax waxam jële ba tey buñ ko ne boo fasiwut ma rey sa doom mbaa sët sët mbaa ma rey sa baay mbaa sa maam mbaa sa yaay mbaa sa maam ji jigéen ba mu tax mu fase it du tax dara war ko ca ci takk takk rek kon buñ ko forcé ne ko soo fasewut ma rey koo xam ne yaa ko jur muy doom mbaa sët wala koo xam ne moo la jur muy baay mbaa maam mbaa maamaat wala muy yaay wala maam jigéen wala maamaat yépp mu daal di fase du tax dara war ko ca loolu nag wute naag duñ ko ne woon boo fasiwut ma rey sa mbokk wala sa doomi mbokk wala sa baay bu ndaw wala sa doomi baay yooyu moom bu fase itam faaw fase ma dal ndax duñ yemale ñooñu ak kum jur mbaa ña ko jur teewul nag bi sañoon duñ ko ne boo fasiwut ñu rey sa mbokk mbaa ku mel ne kooku ni ki bàyyi mu ndaw mbaa yooyu bu fase rek ndax ñooñu mucc moo gën waaye nag bu fase itam pase moom faaw dana dal moom koo xam ne ku am mbañum rus la maanaam am na lu muy bañ ak rus suñ ko tëkkoo ne ko boo fasiwul sa soxna dana bàyyi ba mbooloo mi teew ma mbaj la fi seen kanam te loolu ak toroxal la gu rëy rëy kon dana sañ a fase te bu fase itam du tax fase ma dal mboj moomu nag nekkul lu metti bu fekkoon dane ko woon soo fasewut bu ñu wéetee maa yow dana la mbécc du tax mu sañ a fase taalak day firi aji fasewu maanaam jigéen joo xam ne ab sëyam dañ na bu fekkoon nag soxnaam daa tudd taaliq ñoo ko ne ko yaa taaliq te jublu ca woo rek du ko tax a doon pase te dam jublu ko ci rek du doon pase ndax daa jaar ci turu rek woo ko ponk ñetteel bi mooy yi nga xam ne mën ñu ñàkk ci pase mooy bu ñu defee pase na kan ñu dal ci kawam kooka mënu caa ñàkk te mooy soxna ku yore soxna moo xam jullit la moo xam daa nekk ci diine yahut ba nasaraan moom jëkkër bi mu di ab jullit bu ko fasee rek pase ma dal bu dee jamono yi amee teqale gor ak jaamit noonu la soxnaam doon gor ak doon jaam ñoo ci yemoo kum ci fase rek pase ma dal ñeenteelu ponk yi mooy baat ya ñuy wax bañ xam ne moom nii fase na dafa am nag baat yoo xam ne moom fase dong lañ ko mën a jàppee bu dee ci wolof bu ne ko fase naa la dañuy jàpp ne fase moom am na bu ne jubluñu ci fase itam yoon bu ko nangu bu dee ku dégg arabit bu ne soxnaam tallaqtuki wala anti taaliq wala anti mutallaqa dañu jàpp ne fase na moom xanaa kay la des mooy ñu laaj ko ba xam bu dee ku jàng ci téere yi mbaa mu déglu ba xam ne bu wusee kat ñetti fase moo koy dog te bu dee ci yoonu Maalik moom bu jekkee jekki ne ko fase naa la ñaar ñu koy jàppe ñaar bu ne fase naa la ñett dañ koy jàpp ñett ndegam moom daayam rek ci fase naa la dañ koy laaj ba xam lii suñu yéene ndax da ngaa jublu ci sa xol benn fase rek wala ñaar wala ñett li ñu koy wax rek ñu àtte ko ca loola bu dee nag koo xam ne xamut ci loolu dara mu ne rek soxnaam fase naa la soo bañ jàppe ko rek nee nañu benn nga xam ne bu ëddee ji jeexut mën na ko daal di faylu maanaam delloosi ko bu ëddee ji jeexee itam ñu mën koo takkaat takk bu yees baatub fase naa la ak lu mu tolloo rek ci yeneen làng wax yi ñu xappati la ci fase woo xam ne fase képp lay tegtale dafa am nag ay baat yoo xam ne dàkkental lañ ci fase waaye du xappati yi ci borom ci arab yi bu ne ko anti mabtuutatin wala xabluki ala xaaribiki loolu dàkkantal la ci fase baa di mel noonu nag ci ñoom ñi ko daan jëfandikoo moog baatu fase lañ yemale képp ci fase dong lañ koy jàppee bu ne jublu ko ci tam ñu jàpp ne moom la ci jublu atte ko ca loola bu dee ci wolof it may naa la sa baat dàkkantal la ci fase tey dàkkantal yu fës yu leer nañ ñi nga xam ne bu waxee soxnaam ne ko may naa la sa baat rek fase lañ koy jàppe la des nag mooy bu yemee foofu ñu laaj ko ba xam benn fase rek la jublu wala ñaar wala ñett bu dee koo xam ne xamul nag ci fase benn mbaa ñaar mbaa ñett sooy bañ jàpp ko rek benn loolaay la gën a jàppandi am na it ay baat yoo xam ne mën naa tegtale passé mën na ko bañ a tegtale mel ni mu ne ko demal rek demal rek mën na caa jublu demal passé naa la mën na caa jublu demal baa lijjanti sa mbir wala baa waxtaan ak say mbokk ak yu deme noonu baat na noonu bu ko waxee dañ koy laaj ba xam loo ci jublu bu nee fase ñu ne ko kon moom la ñaata nga yéene woon lim bu wax baax na bu ne it jublu ci woon fase it ñu ne ko wax nga dëgg jublu ci woon fase boo weesoo nag baat yi nga xam ne ñooy tekkale fase bu wér ak yi nga xam ne dàkkintal lañ ci yu fës ak yi nga xam ne dàkkintal lañ ci waaye taxu leen fëse noonu ndax mën na see caa jug yu bokkut ak pase soo doo teg ne bépp baat duñ ko wax te jublu ca fase rek mu daal doon fase ci gàttal daal baat duñ wax moom jëkkër ji jublu caa fase soxnaam doon ci sax laalanti wut ak fase ci ñu koy déggee waaye lu moom la ci jublu rek fase dal nay am bu ne ko woon may ma ndox ma naan la jox ma lekk gee ma lekk wala dama la waaye lu ma diw te jublu ko fase it mu dal di koy doon su waxee kenn ne ko lool saa soxna fase naa ko su kàddoom di daanu rek fase dal nay am kooka dem wax ko soxna sa ak kooka bañ a dem yooyu moo soo boo mu jot lu ko soxna sa te xam ne passé mi am na ba noppi su fekkee ne passé mi da koy bind waxu ko ci làmmiñ dañuy seet su fekkee ne dogowoon na ci faw daal fase soxna si kon bu tàmbalee bind su bindee baatu fase rek passé mi dal nay am moo xam joxe na mbind ma soxna si jot ca wala kilifaam wala déet moom daal ndegam ba muy bind moom dafa dogoon ci passé te bind na baatu passé passé dal nay am bu fekkee nag ba muy bind duguutoon ci passé dana woon daaw bind gisoo ceeg sama baay mbaa sama xarit mbaa keneen kooka moom lu fekk soxna sa juuti ca rek ba xam lañ ci bind mbaa kilifaam jot ca fase amagut waaye nag bu soxna sa gisee mbind ma xam lañ ci bind wala kilifaam jot ca rek fase dal nay am mel ne fekkee soxnaam ko mën a jàng la ba muy bind fase mu ne mu ne woon daay bind ba noppi nag gisoo ceeg sama xarit teg ko foofu rek soxna si ñëw jàng ko passé dal nay am te fekk ba mu bind boo xam nga ne bëggu ci woon su amee yéene passé boo nga ne waaye aggu ci bëggu moom daal yéene nekk na ci tàggoog soxnaam si waaye nag bëggu ci bu wér a wér bind ko waxu ko itam su boobaa kon passé amut kon nag kii fase te di ko bind na seetlu ba xam fu xolam tollu fekkee ba mu bind dafa dogoon ci fase moom buy bind rek baatu fase fase am na mu jàll nag joxe mbind mi soxna si jàng wala kilifaam ak ñu téye ko ñooyee moom nga xam ne rek fase na su dee bind nag ci deng deng rek danaa faseen du ma fase wala su ma bindee ba noppi diisoo ceeg du bu feek soxna sa jotul ca mbind ma wala kilifaam jot ca rek fase amagut waaye nag bu ca soxna sa jotee wala kilifaam jot ca rek fase dal nay am